يقود للمنى بلا قضار في هذه الدار وتلك الدار حسن الذي مضى لخيري سرفا وكوني العبد الخديم عرفا زان عبادتي وزان خدمي صفاء كلي بخير عظمي nawaytu sukrallaahi billasi abaax liya wali kaana bi amnin wa rabaax wajhiya suuta wajhin lilbaaxi wali yaquudu matlaba shubaaxi naajaaniya alkarimu walmukarrimu naajaaniya alsafiicu walmukarramu yaquudu lilqur'aanu walhadiisu ما دون تفسير وتحديث ساق لي الممثل خير الشكر وكان للباخي بخير مكر تسليم من لي كان بالأخراد على بسير خدم أمراد بآله وصحبه والمسلمين والمسلمات نحم خير العالمين سيد أن الله رب واحد ولجنابي لا يميل جاهد رفعت أمداعي لأفضل الورى وقعد لي مع منايا الصورى وجعلي مع قاب أن أمثالي باخ كريم جل عن مثالي نفعني النافع نفعا فاخا ولا ألاقي من أبى وفاقا بان لي الذي على خير اختفى وهو سرور سرمدا للمختفى ناجاني المختار من خير مرا وحيث ما يدي أمض يمرا علي تسليما مخيد الرافي ليس يزال بكريم نافي مد لي الباخي الجزاء بقدري منه ومن رسولي بقدري هديتي من الإله والرسول توجهت لي ونلت غير سول توجهت لي المنى بالانتحاب وبرداء يساق لي ما يستاب من الإله والرسول أقبلا خير صواب من جاد قبلا ناجاني المنصر بالكتاب وغصت ما يحمي عن العتاب إذا كتبت أو قرأت عرفا عشت مننت دوساك العرفا لي بسارات الغرف ضرا ولا توجه إلي ضرا لي المنافع بلا أقدار في الدارة أنا وتلك الدار غدا ونور لا يتوجه من نحوه مضرب أجمل سعادته بغير ما كتبت وكرمي الأبد الخديم قد سبت شكر لي مختار لي بالمسيح téeméer ak fanweer ak ñett boo ko boolee ñoom ñaar muy muy ah, téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn fagal na ma nag ndax tey waajur moo lii tax ñun dugg naa ci biir liggéey bi waaw soñ bi daal comme nii rek la nekk ak noonu bismillah sëriñ ni mais du wax dara ba naa fu muy daal kullu ma a'udu ya allah ya habisu ya salamri ya fa'iqal khalqi man bil khari نفي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد يا سند تولني ولا تكلني إلى أحد وارحمني المسلمين أبدا وسلي وسلم سرمدا على محمد لا لك وليا أبنا الختام لك والدرب dañu daan ñëw ci barab bii juróom ñetti fan yàlla lëm neer fi murid yëpp di liggéeyal soxna jaara ci xasida yi ci ndigal Cheikh Mamadou Moutakha bi Cheikh Mamadou Moutakha daloo leen dëkkoo leen ci kees ak boppam la sëriñ bi jëlam néegam boppam jox leen booba laa aman pasub liggéey këru xasida goo xam ne ahlu xasida gépp la koy defal loolay saabus barab bii mu liggéey ko bëgg muy wàccuwaayu mboolem ku yërëb tukki di ko roy ci sëriñ Mourou Gueye loolu mooy kaddu sëriñ la ba mu xëyee ba nekkoon ba mu xëyee ba léegi ci yitte yi la nekkoon amul benn waxtu woo xam ne estandiku na kon nee sëriñ bi ñëw gi mu ñëw fii ngir léemul si ko barab bii li ngi seeral mbokk yëpp ne sant na sëriñ Touba cantin woo xam ne am na tàmbali waaye muy yem ndax lii day rëy ci moom lool loolu mooy kaddu sëriñ Ibra mi ngi ah. sant mboolem mbokki ah. taalibe yi nga xam ne ba liggéey bi tàmbalee ba kenn ku ci nekk jàpp nga ne sëy fi la jàpp nga ne kër gi yegg balaa poroxaan mooy sa mbirum bopp nee na loolu mi ngi ci sant sëñ Tuubaa ndax xam na ne xasida yi rek tax ngeen jàpp ko lépp lu ko waaj a jàpp na ne xasida yi rek a tax kon mi ngi seereel Serigne Touba ak cant di ko seere ci yéen di wax ne salaamaaleykum jaare sama ginnaaw ne ñëpp ne ñëpp ay kàddu ah, Serigne Cheikh Serigne Ibrahima daa ay kàddu kàddu yu cant ak yooyu gërëm xam ne ci xolam la ko mooy juróom-ñaari fan yi fi daan am ci barab bii di liggéeyal soxna si ci xasida yi nee booba la fasan pas-pas bu wér ci ne dana liggéeyal soxna jaare kër fii kër goo xam ne bu ko defee nag day doon wàccuwaayu ahlu xasida yëpp rajo rajo ko ci sëñ Modou Gueye لم ينوني مكر ولا إبليس أو صبر أو قدر أو تمييز أية من لخير ناوي كل جال الله مدا لي الأكرم تيسيرا يقول خلي وهب الله جاري ربيع سمسمنا خير الله أبيض فزاد الجاري عبد الوهاب من الرحمن amiin barke borom Tuubaa amiin amiin Serigne Ibrahima Gueye Serigne Amsatou mi ngi lay sant ci taxawaay yi nga xam ne képp koo xam wala képp koo am boo sañoon moo am lente sëriñ bi dara dara ñoru la dara du sa yitte lu dul njabootu sëriñ bi sëriñ bi mi ngi sant cant woo xam ne sa bopp yëpp da ahlu xasida yëpp di wax ne ñu ngi seere rek jëwri ñëm la ci ahlu xasida mi ngi seere ne ci sëriñ bi lépp loo xam ne ci ab dongam sëriñ bi ne loolu yitteem sëriñ baa ngi leen di seereel cantam sëriñ Cheikh Sarr seereel ngërëm ci jëkk a ودود كلي أبدا بالهدي وتحمني عن درر وكدي محوت حني الأذى والضرر مني تقبلت الحصان دررا إلي أقبل جزاء باقي مع جزاء فرحة السباقي أقبل جلاء الباقي مع جلاء فرحة الصباق تسبية توحيد ومدح للنبي عليه تسليم غفور المذنبين اغفر بجاه المصطفى لكل من أحبني لوجه مالك الزمن نافع بن فوق كل من تحلق يا من أداني بالنبي وأطلقا اجعلك الجنة بالمختار لمن يلوذ بيد اختتاري لوجهك الكريم حبلي كلما طلبتها منك وكل حل ما لك خطابي موقنا بأني قل وحب فائض بالمن ديتني هداية الحداة وليقود كلية السادات لينتلي بالمصطفى